wax lu dul dëgg in yaxlamul xayra axfahu wa in alamoo xayran aqaafoo wa in lam yaxlamoo xasiboo way way sax bëgguñu ko ci xutba nee na nit ñi tey bu ñu la xamalee benn bu baax dañu koy suul duñu ko wax bu ñu la benn bu bon ko weer ci àdduna bu ñu la xamalul dara nag sosal la yàlla nag nee na inna allaha laa yahdi kayda eh, eh, eh, laxnatullaahi alal kaasibiin inna allaha laa yahdi kayda alxaa'iniina yàlla du jubal pexe warujkat wa fil hadiis addil amaanata ilaa man ihtamanaka wala taqun man xaanak nee na ki wóllërenteeg yow na nga matal kóllëri ga tibul wuruj ki la wuruj Eh, bari na lool léegi wër ci lu ne wër ci yàlla wër ci alal wër ci lu ne ti kat nit ki dénk la alalam nga lekk ka nit ki wóolu la lebal la ba nga bañ ko fay nga ñëw nax ka ci sa daraja walla ci sa walla si sa pexe ba jël alalam lekk ka ci ci baatal nan ko wattandikoo jëli nañ ci imaamu malik radiallahu anhu nee na nit ñi daanañu lekk daanañu leen digal ñu lekk ci bisu kore naka tey jii la jëkk ñuy xëy jëm ci jullikaayu iid ba alayhimu alayhim yàlla na nekk ci nit ñi ridal mubdi il muid ngërëmal yàlla yàlla na nekk ci Malik alayhi yàlla na nekk ci imaamu Malik wa alayhi moo ak jaami yàlla yëpp ridal mubdi il mooy imaam Malik nee na yonent bi daana bu xëyee bala muy dem lekk ay tàndarma eh, kooku ana saka solo dana ñëw imaam nattu nañu woomal lii mu leen jox ndax danañu sant yàlla àqu yàlla ñu jox asaka ji ñi am ay milliards banques yi nañuy seeti la fa am lépp boo amee at ñu génne asaka jox ka ña ko yeyoo jox ka ña ko yeyoo ñiy bay na yàlla woomal na leen nañu génne asaka ja jox ka ña ko yeyoo ñi am xam-xam nañu nañu jëfandikoo nañu ñu jàngoon ti di laabiiri nit ñi pour xamal leen ti bañ ci wut àdduna ak ak man gàmmoor ak man conférence léegi nag ñun conférence ak gàmmoor la ñu jàngale nan leen wattu nan leen dellu si daara ji nee na ñu ñàkk itam ñu ngi jàmba rek taxaw si bunte yi fa na nga yalwaanaat ku ku na nga yalwaan di ka boole si ngi leen di nattu ba xam lii mu leen teg dañu danañu muñ wala déet ndax danañu muñ di leen yàlla teg di sante yàlla itam di yaa muñ ti yaakaar yàlla si li muy jëli si jaam di ko jottali ci ñoom nee na qu anfusakum wa ittaqullaha wa qu anfusakum yaa ayyuha alladina amanu taqulaa wa qawloo qawlan sadida nit ki lu ku nga bëgg a wàcc pouvoir ku am cër nga bëgg a yàq cëram nee na ragal leen yàlla te wattandikul seen bopp ak seen ñooñ safara nan ngay wattandikuloo sa bopp safara wattandikul li la yàlla tere ci taxaw ci li la yàlla sant sa njaboot teg leen ci yoon wi li yàlla santaane teg leen ci ti wa eh, li leen yàlla tere nga bàyyi leen leen góorgóorlu ko am nun góor ñi xam nga ku si nekk takk ñaari jaar yu xaalis góor may ñu kat dara dara dara dara si lu ñu takk du dul benn jaaru xaalis may ñu kat dara si or mu takk du ceen du jaaro du palaat du laneen góor kenn mayu ko itam ñaari jaaru xaalis benn jaaru xaalis bu ëppul ñaari dërëm lañu may góor benn bu limoo rek war nga dindi benn ba ci tuub si yàlla li nga doon def jaaru xaalis góor du ko takk mu limu góor dafa war di war dafa war di yar sikkimam dañ leen góor-góor si eh, di takk benn jaar te di te di yar suñu sikkim yi yonente ma moonu moonu ko sant nan kay def te di ko sant suñuy njabar jigéen ñi col gi bon da ngay gis ko solo mu wàcc ba si suuf waaye yaram wala dali sa kaw ba si suuf boo gëmmul jëmmi yaram wala lépp yaa ngi ko te ñoo ngi génn si si këri si seen këri waajur de wala mu sol lu gàtt walla mu sol pantalon jigéen yàlla rëbb na góor gu jigéen jigéen lu wala jigéen du góor-góor kooku moom sor na di yàlla nu wàcce di seetaan kenn waxu si daal la ma déggoon ñaari borom xam-xam di waxtaan kii ne man bu may waxtaan ñuy neexee rek laay wax kii ne ko ah boo ko def ñu wàcce la fi ah xam nga ni kii du jariñ nit ñi ci xam-xamam bi taam na ñuy neex rek wax nit ñi la leen di jariñ ñu barka mooy te ko doo leen ko hmm. la ñu war a jaar di ko def doole leen ko ah waay góor gi nan leen góor góor waay